لا إله ci daara bi incha allah ñoom ñëpp dinañu àndandoo ñu bakk hymne national biñ ci jógee incha allahu taala benn ndongo walla beneen ndongo bu tudd Cheikh Oumar Touré ba tey moom mooy ñëw def discours arab bu ci paree ñu jox suñu rakk suñu jarbaat soxna Ulay Saar mu daldi di ñu defal moom tamit discours français. incha allah ñu tàmbale ko bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla yàlla may ñu maanaam yàlla kattanal ñu ba ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamina ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala may ñu ñu gudd fan ñu wér ànd ak wérle ba ñu fekkeewaat ko déwén incha allahu ñoom tamit lépp liñ fi jotoon jàng ci année scolaire bi ñu jëriñoo ko bi jaahi nabil Mustafa wa ashaabihi ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd bu sell muy jàmm yàlla ak barkem ak yermandem yàlla nako yàlla wacce ci jotaay bi yàlla nako yàlla wacce ci jotaay yi melni yeb ba jàmm joju wër aduna bi yeb ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke li tax dajje bi am ak barke sababu jotaay bi te moy alquranul karim ñu ngi nuyu mbooleem ku fi teew ci sa tur ak ci sa sant di la wàccee itam wàccuwaay bi nga xam ni moom la la yàlla jox te mooy daraja yi la yàlla jox te mooy ndomba tànk yi la yàlla jox te mooy cër yi la yàlla jox ndax yàlla mooy joxe cër di jiital ci nuyoo yooyu ak ziyaara yi suñu responsable moral suñu responsable moral ci daara ji suñu responsable moral ci école bi franco arabe bi suñu responsable moral ci radio bi suñu responsable moral ci télévision bi suñu responsable moral ci bépp harakats. boo xam ni dañ koy def waaye suñu responsable moral ci daaira safinatu saada bu maam cheikh alxaaji omar radiallahu taala anhu muy kan di almujahidul akbar cerno xaamidu yorobaan ñu ngi koy nuyu bu baax nuyoo bi ànd ak ay ziyaar ànd ak ay ñaan di ko wàccee wàccuwaayam gannaaw bi ñu ko nuyoo ziyaare ko ñu ngi nuyu kilifa yi toog yëpp rawatina kilifa yi nga xam ni ñu ngi bokk ak ñun jotaay bi te yàlla dogal ñu jiitu ci néegu yàlla bi ci zawiye bii ki nga xam ni moo nekk ci sunu kanam ñun ñëpp te carnu teg ko suñu kanam muy al imam al faqih al haji ibrahima allah ma nga nële toog imam ñu ngi lay nuyu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 من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيدتي سادتي معالي الحضور الكرام باسم الطلاب والمسؤولين في مادي حاج عمر تال وباسمه شخصيا أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرحب بكم ترحيبا حارا ونشكركم شكرا جزيلا لتلبيتكم هذه الدعوة بمناسبة احتفالنا لنهاية السنة الدراسية 2022 2021 والدنا الجلاء نوجه إليكم شكرا جزيلا لاختياركم لنا هذا المعهد المبارك وكذلك نوجه شكرا إلى شيخ حامد بن الذي يبذل كل الجهد لتطور دراستنا ولن ننسى فاعلة الخير السيدة بنت الشام أطى الله بقاءها وأخيرا أيها السادة لا يسعني إلا أن أطلب منكم أن نتدرع إلى الله سبحانه وتعالى وندعو أن يوفقنا جميعا لما فيه رشد وصلاح إنه ولي التوفيق كل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جرجف جرجف aywa tilmida Houleye Sarr ndongo bu tudd Houleye Sarr moom moo war a def discours en français. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Imam Thierno Hamidou déclarant responsable de l'Institut LH Amata. Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs, nos chers enseignants, chers invités, chers camarades élèves, au nom des responsables de l'Institut LH Amata, nous vous adressons les salutations de l'islam en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes réunis en ce jour pour marquer la fermeture officielle de l'année scolaire 2021-2022. Notre déclarant responsable, Imam Tcherna Hamidouban, a voulu que cela se fasse solennellement en y associant toutes les parties prenantes du complexe. Cher Oumatal et honoré certains parmi nous. Ainsi, du préscolaire en passant par l'élémentaire jusqu'au Dara, tout l'Institut a été associé à cette fête. C'est l'occasion de rendre hommage à toute l'équipe pédagogique, enseignantes et enseignants, tout confondu, qui, sur les conseils avisés de notre guide, Imam Tcherno Hamidouban n'ont ménagé aucun effort. Malgré un quantum horaire très inférieur à celui des autres établissements classiques, pour nous faire acquérir les compétences inscrites au programme de nos différentes classes. À ces hommages, nous y associerons nos généraux donateurs, sans qui cette fête ne serait être belle. Nous citerons parmi eux Ajarat Bintacha, notre Déudal, pour son soutien ô combien important et désintéressé dans le fonctionnement de notre cher institut. Nous ne cesserons jamais de remercier nos chers parents pour nous avoir choisi cet institut LH Omata de Imam Tcherno Hamid Chers camarades élèves, nous voici au thème d'une année scolaire bien remplie. Les vacances se profilent à l'horizon, mais faisons en sorte qu'elles soient studieuses, car des défis majeurs nous attendent l'année prochaine. Des cahiers vous seront remis tout à l'heure, gracieusement par notre bienfaiteur Imam Tcherno Hamidouban. Profitons-en pour mieux assimiler nos leçons de cette année nous ne serions terminés sans requérir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la paix des cœurs pour notre cher Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Djerejef Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. असलकम वरहमतुल्ला ताला वबरकू इसमें मोहम्मद कसम अतहल्लमा في مدرسة الحاج أمرتار الحديث الشريف وحتى المتدب طلب العلم ساكو هم هم قال وحنا رسول الله وننتي الله صلى الله عليه وسلم تمي ولينا نكسم طلب العلم ساقه خام خام فريدة فرسالة على كل مسلم فبجل بكور ومسلمة أبجل بجكين شكرا شكرا قسما وكيف ايوه شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي عائشة بن هاش أتعلم في مدرسة الحاج عمر تال الحديث الصريف وحتان بتدبي النخي ترى الإيزاء لار الجاري دكندو هالا وحنا رسول الله يوننت يالله صلى الله عليه وسلم Jama helaya nanesimom man kana kepkinga hamne yuk minu billahi gam ngayalla wal yaumin ahiri abbas bumujubin fala yu'zi dular jarau dekendo Masya Allah Imam Alin Jain imam le fële ci grande mosquée koku kenn ku nek xam na ni fofu ku fay jité borom xam-xam nga ku fay jité itam ku ñu tan nga ku bax nga su ko defé mom lañuy jox tabarakallah mom imam Ibrahima imam ali Alioune mu joxe kàddu soxna Binta su noppé inshallah kàddu yi ci top inshallah ñu tek ko ci incha bismillah fadilatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tomb bu njëkk bi Cerno ñu ngi la koy jaarale ci yow wéer ko ci li alquran wax ni watul buyuta min abwaabiha kër ku fa ñëw te nar fa jàmm ca bunt ba ngay jaar boo duggee ca borom kër ga ngay jaar te yàlla dogal na yaay borom daara ji daara ji ñu ñëw fekkee ci lii ngir sàkku si tiyaaba ak yokk ak kóllëre aku mbokk aku xarit ak cofeel yaa nekk ci bunt bi kon ñu ngi lay nuyu boole ci suñuy nuyoo boo xam ne bii nag ci làmmiñu Binta Caam la sak mbaax moo waral lii ku ne xam na ni lii Sénégal yëpp bu dajale woon li ñu am jox la ko amuñ seenu amuñ sa pay yàlla am sa pay ndax ki xam alquran di xamle kooku yàlla la amal affaire kon yàlla yàlla fay la ngeen jig fay ci barke alquran barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa bi ci des Euh, oustaz la wax na ko sànq ba àddina soso ba léegi ñi nga xam ni ñoo fi taxawal diine yàlla daf leen nattoo amuñu joti wuti ak koom-koom na mu waree dañuy taxaw ci diine ji rek yàlla fekk leen ci waaye nag ñaareel yàlla dana leen booleeg ku baax ci nit ñi ku mu jox wërsëg mu di leen ca jàppale ci taraanga ak sutura moom mii ci loolu la ko yàlla boole ndax du yow rekk ñi mu koy defal bari na te bëggul kenn ku ko xam man mii ca suma naawee bàyyam naaw ci niñ koy léeboo ci wolof waaye bàyyiwuñu benn yoon seetaanuñu benn yoon yàlla na ko yàlla lafal cat yàqu ak yàqule yàlla na ko teggi lépp lu mu mën ba ba àddina nay tukki waxtu wu jot bés bu jot ci lu baax yàlla na ko yàlla gën a mën loo te nangul ko ko ci barke alquran barke sayiduna muhammad kooku booy ñaari kàddu yu njëkk yi benn bi yow la benn bi moom bi ci des nag xale yi yéen laay waxal yéen laay waxal yéen xale yi ginnaaw bi ma leen nuyoo sant leen maa ngi leen di encourage li ma leen di encourage nag wax waxi yonent yàlla muhammad la bu ñu bëggoon wax li mu ci wax lu tuuti kon timis fi la ñuy fekk waaye dañ ci am benn tomb buñ ciy wax rek muy ay ahadis yu wér am ci kenn ci borom xam-xam yi tënk ko ci way ki jàng alquran ba mokkal ko boole ceeg mu topp ko kémtalaayu kàttanam kooko waxuma moom ëllëg fa yonent yi taxaw fa lay taxaw du ca yam yashfau fil qurba wa fil jiiraani ka muy nag mooy ndeyam ak baayam teg ca ba ca ñëmu dëkkal kon ñi fi ñëw teew si mënoon nañ dem ci leneen lu dul lii waaye nañ tàmbal seen bopp di teew ci yu mel nii te xam ni yokkute àdduna ak lañ fay jëlee أول ما يشفع في أبيه وأمه وأخته مع أخيه ma tënk ko foofu ngir gàttal beneen bi ci des mooy suñu borom moo wax ci suuratu Zaariyaat xisib ba di qaala fa ma xatbukum ca jeexalukaay ba dara taxul ma bind leen man yàlla wàcce leen ci kaw suuf lu dul ngeen jaamu ma ndax bu dee taraanga la ak wërsëg ak wér ak dundak lépp man yàlla mako accumuler te téye ma ko joxul doo ko am wa maa jinna wal insa illa li yabudun uridu minhum min rizqin wa uridu an yut'imun inna allah huwa razaqu dul quwati matin la ca gëna am solo nak départ am solo mais la ca gëna am solo moy mucc yàlla nañu ko yàlla boole defal son papa dafa ma daan wax ni ma jëk jitu taxul mom yoon góor góorlul nga jàng mu ne ma soo ko bëggee xam da ngay dem quartier soldaar yi di maaj ñi nekkoon ci kanam bu ñu demee ba fële ñu ne garde bu ne retourné leen ña nekkoon ca kanam ñooy mujj nekk ca gannaaw ña nekkoon ca ginnaaw nekk ca kanam moo tax yal na yàlla saxal leen te may leen mujj gu rafet defal ñu ko ak bépp jullit alquran jii ngeen di gis adduna li fi yàlla ma masa wàcce ci téere alquran ci gën li ñuy jaamoo yàlla yi alquran ci gën bu len ken nax ci dara ci ni bo jangé li bo waxé li bo défé li alquran ci gën bo jangé alquran di nga am lépp yaa man yuridu alqurba min mawlaahu falyaqra alqurana laa yansaahu جاءت لكل حرف عشر حسنات كذاك تمحى عنه عشر سيئات ومن قراه يا أخي بالطهر لكل حرف كهو فافهم وادري ومن قراه في الصلاة قائما خمسون للحرف فكن معلما بفهم أو بغير فهم يا فتى هذا هو الفضل من الله الأتى رواه من تعلم يا صاحبي عن الحسين بن علي عن النبي من يوم بق جيجن صبرم تلو sa واي لو lu nit كوسوف waaye lu nit di yow mi bëgg jegeñ yàlla nag farataalal jàng alquran ñu ne ko lu tax mu ne yonent bee ko wax ca mujj ga yonent bee ko wax ñu jële ko ci xasan mu jële ko ci baayam aliyun mu jële ko ci yonent yàlla muhammad mu ne lu tax yaa man yuridu qurba min mawlaahu jàngal alquran bul ko bàyyi mukk lu tax jaat li kulli xarfin ashru xasanaat yonent bi nee na benn xaraf boo jàng ci alquran yàlla defal la fukki yiw faral la fukki ñaawteef waxul alif laam miim waaye nga ne alif laam alif rek yàlla defal la ci fukki yiw faral la fukki ñaawteef jaat li kulli xarfin ashru xasanaat kadaka tumxa anhu ashru siyaat wa man qaraahu yaa axi bi tuhri fekk ba nga koy jàng nga ànd ak laab yéen bokku leen ci ngant loolu am ngeen ko parce que mun leen fu ngeen toll di jàpp ndax da ngeen dëkk ak alquran di ko jàng guddi ak bëccëg waaye keneen ku dul ñoom wa man qaraahu ya axi bi tuhri li kulli xarfin kahu fa fam wadri wa man qaraahu fi salaati qaa'ima gis nga juróom fukki julli ya yàlla wàññi woon def ko juróomi julli te mu yoolu juróom fukki julli booy julli di jàng alquran fukki yiw lañ la waxoon waaye benn xaraf boo jàng yàlla defal la ko juróom fukki yiw faral la juróom fukki ñaawteef kon loolu am na solo moom rek la ñuy jaamoo yàlla même xadisu yonent bi kenn du ko jaamoo yàlla alquran la ñuy jaamoo yàlla xadisu yonent bi li nga koy jaamoo yàlla mooy xam li nga xam ni moom la yàlla wax ta jaarale ko yonent bi mu interprété ko ngir nga mën a dégg alquran loola da nekk jaamu yàlla ci yow waaye di julli wala di zikr même boo amul benn turu yàlla tey jàng alquran mel na ni zikr nga turu yàlla yëpp te di nga jegeñ sa borom kon sax ci lii ngeen nekk kon su ko defee yal yàlla jàppale len sax len ci bu len ñé sen ben morom su ngeen ci nekké yàlla mi joxe mo len di téyel bopam aduna ak alakhirah kon yal yàlla saxal len ta fay sen sëriñ bi ak mbolom ñi ci jàppale ak seeni wayjur ak kep kuy jullit wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciarno ne yaakar na ni kaddum yi du gudd sax de. Cerno ne mi ngi leen di nuyu ci baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ne mi ngi leen di dalal jàmm ci seen bërëb. di leen jaa jëfal ci seen teewaay bi. Cerno ne mi ngi jaajëfal ñépp góor jigéen mag ndaw. Cerno ne wuy si bi ngeen wuy alquranul karim yal na yàlla fay ngir barke alquranul karim di sant bu baax ustaas bi ak directeur bi ak jàngalekat yépp sëriñ bi ne mi ngi sant ustaas yi nekk ci taxfiis bi di jàngale alquran ak directeuru école bi ak jàngalekat yi jàngale arab ak français ak mboolem koo xam ni yaa ngi liggéey ci biir école bi wala daara ji sëriñ bi ne mi ngi lay sant di la gërëm Cerno Hamidou ne mi ngi sant itam way jur yu góor yi ak yu jigéen yi nga xam ni ñoo wóolu bërëb bi muy daara ji ba indi fi seeni doom mais mi ngi sant xale yi fiy jàng yépp waaye nag cant gi mi ngi koy laytaaye ñaanal leen yàlla sëriñ bi ne xale yi maa ngi leen di ñaax ci li ngeen nekk ci kawam te mooy alquran ak jàng xam-xam sëriñ bi ne alhamdulilahi rabbil alamina li gën a am solo mooy yar macha allah mosuñu ma wax ne ñëwal atte diw ak diw. mais xale yi ne mi ngi sant yàlla depuis xale yi ñu ñëw ci daara jeeg léegi kenn mosu ko ni ko kay atte diw ak diw. sama dafay wasifa suba ba pare sama ma yegee si kaw di waxtaan ak yéen samay sët ngeen seen maam la dañuy kafre jëflante lu ne macha allah par fajar si su wasifa ba pare day yéeg ci kaw daara ji moom cerno pour nemmeeku xale yi waaye bu ñëwee toog ci biir xale yi di waxtaan ak ñoom day kaf xale yi ree ndax xale yépp ay sëtam lañu moom seen maam la aaye bu mujj ci moom lañuy def tem ne bu yéegee aaye bi mujj ci seen nafar moom lañuy def tem laaj leen pulaar la ñuy wax wala olof la ñuy wax. mais su ma ñëwee ma laaj leen leen pulaar la ñuy wax wala olof. léeg-léeg pulaar yooyu ñee ñu ne pulaar pulaar pulaar pulaar. nee na léeg-léeg ci jataay bi xale yi pulaar yi ñooy gën a bari ñu ni pulaar pulaar pulaar. ma ne ku bëgg pulaar na yëkkati loxo. mais su ko defee moom it mu ni leen ku bëgg ñu wax pulaar na yëkkati loxoom. ñi bëgg pulaar yëpp yëkkati loxo. mais bëgg pulaar yëpp daal di yëkkati seen loxo. wàcce leen seen loxo. ne mu ni wàccee leen seen loxo. mu ñu bëgg wolof yëpp nañu yëkkati ñaari loxo. ne mu ni leen ñi bëgg wolof yëpp nañu yëkkati ñaari loxo. wolof yëkkati ñaari loxo. ne wolof yi yëkkati ñaari loxo. ma ne ko moo gën a bari. ma ni leen eh yéen ndekete loxo yi jóg léegi muy loxo olof yi ñoo gën a bari. kon nag nañu wax wolof. kon nag nañu wax olof. noonu la ñuy dundee. nee na noonu la ñuy ne kafa xale yi réew ak ñoom. wante dugal leen yarub lislaam. fexe ba dugal ci ñoom yarub lislaam. sant di gërëm mboolem ñi jàppale daara sëriñ bi ne mi ngi sant. ak gërëm mbooleem koo xam ni jàppale nga daara ji. ñi ñu xam ak ñi ñu xamul. ne xam ak ñi ñu xamul. wante nag di ci ràññee jigéen bi di soxna Binta Thiam. wante sëriñ bi ne mi ngi ciy ràññee jigéenam bu baax bi toog di soxna bint Thiam. عمل صالحا فلنفسه Thierno ne suñu borom bi dafa wax ni man amila saalihan fa li nafsihi wante jëf bi gën a am solo mooy ixlaas wante ne jëf bi ci gën a am solo nga jëf ko ba pare boole ci ak sellal ko Thierno ne yàlla ne wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin am na ay soppe yu bari ne moom day am na soppe yu bari moom Thierno am na itam ay xarit yu bare góor ak jigéen nee te ñooñu soppeem yooyu ak xaritam yooyu am na ñoo xam ne yàlla mën na loo leen dara de ñi nga xam ne suñu ma joxee ay million sax seen million bi dama koy téye ngir teraanga wante million yooyu ñëwuma ñëwuma million yooyu nee am na ñoo xam ne suñu yëkkati woon ay million teg ci loxoom nee dana ko téye ngir teraanga waaye ñeewul million yooyu wante am na ñi nga xam ne su suñu jëlee benn euh, tàndarma suñu ma joxee dafa may neex ndax dama xam ne ñii dañoo joxe ngir yàlla. mais waaye am na ñoo xam ne suñuy yëkkatee benn doomu tàndarma jox ko ko ne doomu tàndarma boobu li muy tuuti tuuti nee na da koy neex ndax dafa xam ni ñii dañuy joxe ngir yàlla. lu mu def ci neex xam naa ne ñooñu nag bokk na ci soxna Binta Caam mii toog sëriñ bi ne lépp lu mu def ci daara ji da koy neex ndax xam na ni soxna bint lépp lu mu def rek ngir yàlla tax. te lépp lu defal am na ñu mu defal lu gën li ma yàlla. te nee na moom Thierno lim koy defal wóor na ko ni Thierno soxna Binta Caam. dana defal lu upp loolu ñeneen te dara taxawul ngir jëmmi yàlla imam ni wallahi ma ngi koy jiñ ci yàlla ne mi ngi koy def ngir ñaari mbir ne bu ñëk bi day def limi def ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala benen bi mi ngi koy def ngir sam kàddu way jur def yëpp ko ci doon ñaax mu nekkee fii rahmatullahi alayhi yal na ko yàlla ndax mbaax yi muy def yëpp moom soxna Binta Thiam way juróom wu baax wa ba muy dund di baayam mi ngi ko ci doon ñaax di ko ko digal car na ne yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla yokk leeram kon sëriñ bi nee na daal moom mi ngi sant ñépp tey gërëm ñépp ñi nga tudd sànq ak ñi seen biir ci cant ak ngërëm Sering bine ne ñima tuddu sank ak sax ñima jotul tuddu ñom ñaap gis nañu sen tiant ak sen ngeureum ci bir ne do ñom abdoulaye bari tubarakallah ak ñeneen ak ñeneen ñom ñaap ñu ngi ci bir musabaqa yi ne musabaqa moy konkuri yi doon def fi ci alquran ñom ñepp gagné serigne bi du am rek mo gagné de neena ñom ñaap ño gagné kenn ku ne si yéen bi ngay ñëw fii xamuloo woon lan mooy alif lan mooy ba lan mooy ta ndax kenn ku nekk ci ñoom bi ñu lay indil ci daara ji xamuloo luy alif xamuloo luy ba xamuloo luy ta soo demee ba yàlla may la nga mokkal même bu dee benn aaya wala benn saar sant yàlla la. nee soo demee ba yàlla may la nag nga mokkal même bu dee benn aaya wala bu dee benn saar nee na loolu sant yàlla la. te alhamdulilah rabbil alamin chaque année ñu ngi génnee lu ñett ñett ñeent al xuffaad te ne at mu jot daara ji lu mu tuuti tuuti dana génnee ñetti nit wala ñeenti nit ñoo xam ni daañu mokkal alquran loolu sant yàlla la. ñuy jàng fii léegi. mais même xale yi doon jàng fii léegi. man ak imaam aywa Seydina Aliou Diagne. moom mi toog ak imaam Seydina Aliou Diagne. maa ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam. mais Thierno ngi koy sant ci teewaayam di ko gërëm. sant maître Binta Thiam bi nga xam ne moo def sabab ba ñu xamante tey. mais di sant maître Binta mi def bu ñoom ñaar ñu xamante te soppoon naa la ngir jëmma ak jimmam. sëriñ bi ne Imam Alioune Diagne sëriñ bi nee na sopp na la ngir jëmmi yàlla ak jëmmi bint soxna bint Thiam. ak mbaax li ma xeeñcu ci yow. ak mbaax gi muy ci yow. man ak yow yëpp dañuy déglu benn xale ñu ne bii moom bii mooy mooy mooy mooy gañam nee na ñoom bi déglu ci seen xol ak seen dañuy déglu xale muy tari ñu kii moom xam naa ni mooy gañe concours bi. demee ba mu wan wan na bi moo bañ a ko indi man ma génn ma ne bii moom danaa ko sanctionné. nee danaa ko disqualifié. nee bu demee ba mu wan na sàdd bi ar xarfu sàdd bañ ko génnee nee na mu ne ah man nag kii dama koy disqualifié. yow soo demee ba mu ba mu mu wan na baad bi mu def ko daal. yow tamit nga ne ah bii moom sànq danaa ko retiré. nee na imaam Alioune Diagne it bu xale bi waree wax baab mu def kat dayal bu wow moom tamit mu ne ah kii itam dinaa ko disqualifié. ndax xarfu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu mokkee rek dafa mel na sooy mun a mun nga dawal oto soo nekkee ak wetu chauffeur. ne xaraf yi su fekkee ni mokkal nga ko su ko nit dee wax dafa mel ni kuy dawal oto man dawal oto ba pare toog ci wetu chauffeur bi chauffeur bi di dawal. toujours ngay téye frein. mais yenn saa yi bu chauffeur bi jubee dara rek balaa muy frein yow da ngay frein ni ci suuf. te doo ko tey te doo ko tey. man ak moom. man ñoom ñaar. ngi bind rek. nee na bi ñu toogee fii ñu ngi bind rek. suñu defee siin bi ñu def ko saat wala saat bi ñu def ko siin rek. nee na bu ñu defee siin ñu def ko saat wala saat bi ñu def ko siin. man damay bind man tam ma gis moom mu ngi bind. moom day bind fi mu toog waaye moom it mi ngi bàyyi xel imaam Alioune Diagne moom it mi ngi bind rek. wante li ñu xalaatoon yëpp mooy ñu jox xale bi di hamdu rabbi sal ñu jox ko kado. wante ñoom li ñu xalaatoon alhamdulilahi rabbil alamina looloo dëppoog ñi nekkoon ci ginnaaw di àtte mooy hamdu rabbihi bi moom nañ ko jox cadeau. wala ñu jox ko Mouhamed Touré. ndax ni ñu nekkee ndaw. ndax ñoom ñaar li ñu nekkee ndaw. suñu joxoon Mouhamed Touré. nee suñu joxoon Mouhamed Touré. danañu neex lool lool lool. nee dana ko neex lool lool lool. wante ko xam daara bi dana ŋaññi ustaas bi day wax ne ne doomu ustaas bi ustaas bi faral ah, la jox na ko Touré. wante bi la na ko wante nag alhamdulilah su ko yàlla da koy jox. wante ne alhamdulilahi rabbil alamina lii mbirum alquran la bu ko yàlla joxoon nit dañ ko koy jox de. kon nag oustaz seen atte bi jub na baax na jaar na yoon. kon nag bi ne seen atte bi jub na baax na jaar na yoon. yal na yàlla dooli tawfiq yal na yàlla dooli najaax. yal yàlla na nu yàlla may ñu fekkee déwén amin ak déwén yu bare bare amin sant soxna ñu ma ba ak seeni rajo ak seeni télévision Safina TV ak Safina FM ne mi ngi sant directrice su di soxna ñi ma ba ni ngi koy sant ak waa rajo bi ak waa télévision bi yëpp sëriñ bi ne mi ngi leen di sant ne su fekkee defuñu ko direct tamit daañ ko tegaat incha allah kon sëriñ bi ne mi ngi ñaan yàlla yàlla nu yàlla may ñu fekkee déwén ak déwén yu bare bare bare yàlla na yàlla wàcce jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër te yàlla gën a dooleel lislaam bi dooleel ñi nga xam ni ñooy dooleel lislaam bi te yàlla na nu yàlla boole ci ñooñu ne mi ngi gërëm bu baax di sant di ñaanal doomam bi toog di pap Makhtar Sylla ndax borom daara nga borom franco arabe la. ndax ne doomam bi borom daara la borom franco arab la. wante lépp lu nee na lépp lu ñuy xewal fii ñun ñooy jiitu rek. ne maa ngi jóge ba Caaroy. ne yàlla nu yàlla boole fay yiw ñun ñëpp. جزاكم الله عنا خيرا ذا التجلي والجلال والجلال يا خفي يا لطف يا رب النوال هب لنا صالح من عمر ومال ربنا والطف بنا في كل حال والجلال رب النوال رب النوال ربنا يا ذا التجلي والجلال والجلال يا خفي يا لطف يا رب النوال رب النوال هب لنا صالح من عمر ومال ربنا والطف بنا في كل حال ذا التجلي والجلال والجلال يا خفي يا لطف يا رب النوال قبلنا صالح من عمر ومال ربنا لطفنا في كل حال ربنا ثابت على الحق القلوب والقلوب وامنع الأسرار عنا والخطوب ربنا اللهم جنبنا الذنوب واهدنا الحكمة في كل الفعال ربنا يا ذا التجلي والجلال والجلال يا خفي يا رب النوال صالح من عمر ومال ربنا والطف بنا في كل حال ربنا ها قد مددنا باليدين باليدين نترجى رحمة للوالدين للوالدين فتقبل واقض عنا كل دين ربنا وابعث لنا الرزق الحلال ربنا يا ذا التجلي والجلال والجلال يا خفي يا لطف يا رب النوال رب النوال هب لنا صالح من عمر ومال ربنا واطف في كل حال